Euh, Assemblée nationale le projet de loi rejeté sur la suppression du HCCT avec euh, le CS, conseil économique et sociétal euh, conseil économique social et environnemental daal dinañ koy rejeté ginnaaw loolu le ki nga xamante ne président de Diomaye Faye nee jël acte boobu nag ginnaaw moom bu mu waxee jël na acte dañoo gis benn sortie boo xamante ne temps kii di premier ministre moo ko def waaye kaddu yu mu ci yëkkati mu nekk kàddu yoo xamante ne euh, bizarre na waaye kàddu yoo xamante ne kenn mënul xam fan la ko war a mën a féetale waa xam nga Zeyna dañuy olof Njaay dafa am dafay faral di wax naan su bukki yebee ponkal ca doxalin bi la ku may golo mu yéeg sa mbagg sa diggu bopp la jëm mhm. ñun on n'a rien à cerner avec le premier Ah On n'a rien à cerner avec le Premier ministre. Les Sénégalais ont voté à la majorité avec 54,28% avec le nom de Basirou Diomaye Diakhar Faye. Sénégalais yi Basirou Diomaye Faye conseil constitutionnel au nom du peuple sénégalais et nom de la nation sénégalaise je respecte respecter le plus luy constitution du Sénégal di charte ndey réewam bi tax tay mu taxaw di waat dina ko respecté te dina ko respecté loo bépp sénégalais kon su amé benen sénégalais bo xamante tay mom moko fal koku respecter wul suñu institution ñun on n'a pas de compte à demander à celui qui l'a fait muy son premier ministre. c'est lui qui doit prendre ses responsabilités mom mo war xamni ka tay yalla, mom la tek ci bop réewu Sénégal mom mo war xamni ka tay que tef bi moko mom mom mo moo xamni tay moy boum moy mooy bummi ci bigam bobu ci njogalu sénégalais moo ko may tey mu nommé premier ministre am su ñu demee nag ba moom ci boppam yàlla cëral ko nàkkal ko jox ko li nga xamante ni moo ko moom mu dem ba mënu ko assumé wax dëgg yàlla ni mu laajee avis conseil constitutionnel noonu la ko war a laajee avis ne man mii kat jox ngeen ma dara mais mënu ma te man maa waat Nous avons def ñu ne ko démissionnel su démissionné ñu jël Amadou mam Diop nous ko fa ci diiru ñaari ñu organiser élection premier ministre sénégalais Fall, fal ñu xam que sénégalais premier ministre diriger lu def ñu xam sénégalais mais on ne peut pas comprendre un premier ministre qui fait des sorties hasardeuses qui fait des sorties yo xamanteni no sens la qui fait des sorties yo xamanteni tay respecté wul ben yon suñu institution man nak foogoon naa ni ñàkk a respecté sa institution bi nga nekké à l'opposition xeyna dafa wara waraloon ni que yow xamoo li ngay wax mais ça so démé ba nga xamanteni ni yow ya ci tok li nga tok li nga ñak respecté yow ya ci tok muy sa institution primature bobu institution la présidence institution la assemblée nationale institution la donc tey moom su demee ba respecté wul loolu xamul lan mooy différence su exécutif lan mooy différence su législatif ak judiciaire je crois que nak ñàkk xam boobu kenn tooñuñu kudul ki nga xamante ne le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye il n'a qu'à prendre ses responsabilités tey discours yi muy def nii am priorité yi foo xamante ne foofu la nekk xam nga priorité yi fan la nekk boo yii di jël gaal yi di dem di faatu priorité yi xam fan la nekk accident yi nga xamante ne ñi ngi faat nit ñi xam nga priorité fal nekk insécurité bi nga xamante ne mi ngi jalo galone fii nga xamante ne mooy suñu Sénégal démb laa gis diggu bëccëg ndar kam on midi midi ay nit di daw scooter di daw ay nit gaare seen scooter ci diggu ko ñëppay doxo wàcc ak seen jaas yi xëcc kële mu daanu jël saag bi taalaat seen scooter daw dem seen yoon midi midi cinquante neuf hmm? fii laa ko gisee ci Ndakaaru bi démb xaaral ma vidéo bi su disponible ma yone ko wa régie demb demb ah, demb agression en plein jour plein jour amul nëbbatu amul dara. scooter la yor yor ah. scooter la yor. duñu dox duñu ñu dina ko vérifier légui voilà donc je crois que priorité bi fofu la nek tey ji je crois que ci Sénégal mais priorité bi nekul tok wo ay artistes tok mbelelele di dankafu di menacer di wax. mais président bi mu waxee day jël acte temps il fallait waroon lool loolu lañ doon xaar jël acte bi. waa xam nga tey soo proposé sa dara amoo li nga bëggoon mën nga ne j'en prends acte j'en prends acte boobu nag du dara mooy bàyyi naa ci xel nit da nga ciy bàyyi xel du tax mu bàyyi ci xel parce que day naan xëy na beneen yoon dina xool naka la koy defee wala naka la ko dul defee. donc loolu dañ ko koy nangul le président de la République mais nu mu waxee ni j'en prends acte ak décision bi ñëwaat bi loolu moo bett Sénégalais yi parce que tey. prérogative bi nga xamante ni am nga sañ-sañu nommé am nga sañ-sañu dégommé muy civil muy militaire kenn la ko yàlla jagleel jamono jii muy le président de la république Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. du Amadou maam Diop du premier ministre du conseil économique social environnemental kenn la muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñàkk a sa président de la république weesul même tey président Bassirou Diomaye Faye su la sëggee sa nopp ne ñaar ñii suñu voté wul lii dama koy dàq yow war nga mën a denc secret boobu ba kérok mu jël décision mais li jaaxal sénégalais yi dañu toog à midi moom premier ministre taxaw ne rejeté nañu projet de loi bi waaye balaa jant di sow ngeen di gis li xew ñaari président institution yëpp danañ leen dàq. kon moom kàddoom moo jiitu décret président de la république 16 heures ñu génneel ñu benn communiqué alors que décret la waroon doon niñ ko bindee sous forme de décret la am numéro ba léegi amul numéro. dañuy jël décret décret du 4 septembre 2024 mu jaarul yoon moo tax ba tey jii Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi xëy Abdoulaye Daouda yàlla mi ngi xëy. ah bon waaw nit ki soo koy dàq da nga koy jaarale ci yoon. bërki démb bañ ko woowee assemblée nationale dafa ne règlement intérieur bi nekkul à jour donc lu ñëw def déclaration de politique générale ki ngay dàq nag ci li nga xamante ne mooy institution da ngay jël décret numéro ko ñu xam numéro décret nangam sangam nangam sangam à la date de la loi tel tel moo porté ma mettre fonction ci Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo ñu jot communiqué bi signé par qui le secrétaire général du gouvernement du Omar Sambaba, mi ngi noonu mhm. par décret en date décret numéro nangam la war don décret numéro nangam de la loi nangam à la date du 4 septembre 2024 kon donc ben feuille la rek bu profito dal di koy bind sànni ko ci mbedd bi donc ñak a aussi ki di Abdoulaye Daouda Diallo ci la bok ñak a ki di Aminta Meng Ndiaye ci la bok parce que ay institution lañu tay jang jàng bi ñu am ak xam-xam bi am premier ministre amuko président si bopam amuko cursus biñu am palmarès biñu am ci walu gestion état ñom amuñu ko kon donc ñak respecter ñoñu lolu lañ fi gis donc suñu gisee mu wax ko après président ñew sukkandiku ci lolu donc dafay wane ni ka tay ñun dañu fal ben président de la république ko xamante ni dafa top ci ginnaw premier ministre ndax ndaxte lu ñuy jàpp premier ministre bi moy dogal parce que mom mo wax lolu lay nuru mom mo ne ñi duñ fa fanal 16 heures ñi génnee communiqué ñu ne dàq nañ leen kon acte nañ ko kon président bu mu nee j'en prends acte mi ngi Chine nekk ci liggéey bu am solo waroon na bàyyi ba mu ñëw mu réunir mooy li ma la wax ci départ bi dialogue moo manqué Sénégal et manque de dialogue boobu nag tey moom moo indi ñi naan crise parce que dañu indi yëfu defante yëfu xale yëfu foowukaay yoo xamante ne amalul Sénégal benn njëriñ donc ci biir loolu nag kàddu yooyu mu yëkkati jaaxal na Sénégalais moom premier ministre amul sañ bi. amul mën-mën bi mais lenn la bëgg a wone ci bëtu sénégalais yi man maay buum maay buum mi ki ngeen fal président lu mu def man maa ko donc loolu je crois que ki respecté wul yow ki jël bigam nommé la kooku du respecté beneen peuple sénégalais donc je crois que tey ñun Sénégal du lii lañ doon aspiré yàgg nañu am premier ministre li ko tële ci kii nga xamante ni mooy Abdou Diouf Habib Thiam ñoom euh, Loum ñoom pas major boy qui dit Aminata Touré, Idrissa Seck, Macky Sall, on n'a jamais vu un tel comportement sur un premier ministre. bo xamanteni dagga sante ngay nekké suba ngone goudé ak bëcëk suba ngone menace suba ngone alors que da nga fogg ni que dañ la jox li nga xamanteni daf la jom alors que yalla mayewul dafa ablé limu la jox suba mën na ko rocci nit génn na këram léegi léegi ne maa ngi dem te ñëw balaa ñuy ñëw ci diggante bi ñu nit ki faatu na. kon nit da nga war a delloowaat sa xel ci suñu borom xam na ni que li ngay def nii tegoo ko fen donc lépp lu ñu maanaam mooy jamono jii moom mën nañu wax lépp ñi ngi ci mais nekkuñu ci république moom. ni république di fonctionner jëmale ko ci institution euh, fondamentaux muy charte ndey réew mi ñu war ci tek par cadre per bu ci nek nekkuñu ci lolu ci anarchie lañu nek nekk sax tey ci kër ndax ci kër sax day am règlement di naan ki moy kilifa ji ki moy taw ki mo ci top ki mo ci top ba ngay jox cër sa wajur mais tay gisuñu lolu tay suñu ay institution hmm. donc c'est déplorable ñu ngi koy ñaawlu mais amuñu dara lu ñuy wax ak le premier ministre man j'ai pas de compte bo xamanteni soxna premier ministre rendement xam nga la la soxla hmm. c'est le président de la république Bassirou Diomaye fay mo war taxaw ci kanamu sénégalais parce que